من شرك ومن كل نباق وسادة الدم برأني من أي بنصيب النبي صلى عليه بالسلام المتنبي هو الذي لم أرى خيره ولا أراه في شيء أداء ولا محمد صلى عليه بالسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني قل وحب وقديم له قطاب ومهما الأقدار ولي سوانا وجه القدر أيتنا على العدا فقلب ولي سوانا ذاخرين انقلب تسليم باق قاد للثواب على الذي أورثني الثواب على الذي طلب كوني القديم لو ماشي البرية القديم لمن له كلية عبادة حمدي ومن قال فني أبدا ملك كل شيء ليس له مباه لي قاد ما قاب عن المباه نجاني العليم والكبير وجاد الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو رافع ساق مكاره لمن قبل النهار مضرتي من ليقود منها ملكني المليك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا والثواب وجدا والوعد لي في رمضان نجدا أجر الذي ما عنده لا ينفد وذل لي وما ترى النفد أجر الذي ما عنده لا ينفد وسل لي وما تراه النفد خدمة خير العالمين عملا علي تديم الكريم الأمدا فرات القلب ونفسي تيبا وبمكار لخير سببا يسر خير العالمين قلمي علي تسليما مزيل الألم للمستوى وجهت لقادا نفعا بلا مدرة فانقادا هو الشفيع وهو السجاع بما زلمي والأوجاه محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ما بلاء وما أمرني وبرداية تنقاد للأغراض نبينا المتار خير أنبياء عليه تسليما أبي بربي قدت له كليتي في العلن والسر وهو لي قاد ولني ربات قدمة إلى الوسيلة صلى عليه من أرى التفديل ربات قدمة إلى الماهي السند ولي سوانا ساق كل من فنر هو والنبي والرسول والقليل وهو الحبيب ويكسر القليل تسليم باق لا يزال السمد على النبي والرسول أحمد أبقى سلام الكريم السمد على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلام الكريم السمد يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم جعلت الفتر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك بي وقبل قد تفر لك زدت قصيدتي تي شكورا ولم تزل يا مالك شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك فعل آتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرديت عنك باركت لي يا ربي في أروفي وغيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما قاد للتبشير والتكريم أتيتني ما القلب أنسى كلما مدى من الدر ما تسلما كافأني من ما له كفء أحد بمالك إساق كل من جحد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفء أحد ناجاني الله مكرم السمن تناجيا في كباني الكمن والجهل أكرم أنفع الكرم وضرر بغير رد لنسرم أسأله كونتي القسيدة قارعة لآلة مفيدة يا حي يا قيوم سل بسلام على الذي جاء بأسن كلام على الذي جاء بأسن كلام سل وسلم والتقبل سل كلام من على قارئ ذي الحروف بما يفوق الظن أنت من محروف لنازم الحروف قلد الربا يا من كفى القرور والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجيك عبدك القديم ساسلا مسلما على مساسي القلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين المسلمين mbok juli di mbokk taalibe yi ginnaaw bi leen nuyo di leen ziar di leen baal wàq te di leen balak di ñaanal yalla serigne muntaha Mbàkke yalla suñu borom yagal ko fi lol ma ànd ak wér ci serigne Touba yëpp yalla na ko di ñaanal bépp kilifa diine ak bépp kilifa aada yalla suñu borom yagal fi di jiital ci nuyoo bi sunu wayjur yi nga xam ne moom lañ fekk si fii tey di sëñ Imaam si la di ko ñaanal yàlla suñ boroom may ko wér may ko fanu gudd ba taxawaay bi nga xam ne am na ko ci diine ji am ko ci lislaam am ko ci njaboot gi yëpp yal na yàlla suñ boroom gën ko fee dolle yàggal ba yéenam yëpp mu àgg ginnaaw si loolu waa daayira soppee Serigne Salif Mbacke ñëw ziyaare si tey jii sëñ Imaam ci jaaral ko jiit ci turu commission bi di suñu tuutànk yi di commission jannatul mahwa di len ñaanal yalla ñoom it seen taxawaay yalla na suñu borom gën ko saxal gën yagal ba li yéen jiñ am ci liggey bi yep yalla nañ ci am lu kawé seenu njort di jéggalu bu baax imam ci togaay bi yag yag bi nga xamne tok nako di nu xaar ñong koy tub bu baax ci diko jéggalu li nga xamne mo waral sabab bi tay ji fi it daayira Serigne Salim Mbacke jog di ziaré ji ku ne xam ne ne bis bii nga xam ne at mu jot daayira bi da koy taxawal sëñ imaam mi nekk na ci ñi nga xam ne ñoo faraan jiitu ca bisu cant ga ci wàcceeg alxuraan gi kon moom yaakaar naa taxawaayam daayira bi soppee sëñ Saliou Mbacke yëpp gis nañ ko ba loolu moo waral tey jii daayira bi ñëw ziare si ko te ku ne xam ne ni ren jii cant gi nga xam ne ñoo ngi koy wàcc dañ koo tudde sëñ Mbacke Bousso te ku ne xam sëñ Mbacke Bousso xam ko ci diine xam ko ci lislaam xam ko ci ilimaan ba loolu moo waral sabab bi ren yi ñu fas yéene jóg dimanche yi nga xam ne moo dox suñu diggante koor gi ba ba ñu àgg cant gi yëpp ñu koy ziyaare ji imaam yi ngir gën a yeesal suñu wóllëre ñoom gën a yeesal suñu kóllëre ak moom di gën a yeesal suñu diggante ak moom ndax ku ne xam na ne sëñ imaam yi ñu ziyaare si ba ko suñ borom di gën a may wér gi muy jàkka ji di jumaa ji nga xam ne maanaam fi la ñuy jullee muy fajar ba gee kenn daaw ko fa jiitu boo ko fa jiitoon boo toogee mu yegsi kon yaakaar naa tey jii bu demee ba xëy na génnam bëreetut jëmal mag la ak euh, ñàkk wér gi waaye yal na yàlla suñ borom gën koo rof kàttan ba lépp lu mu mënoon ci diine daan ko taxawu diine yàlla suñ borom sàmm ko aar ko ba lépp mu gën koo àggale ndax nekk na koo xam ne nit ku yéene ñëpp jàmm la ndax fu mu toll ku ne xam na ne mag la waaye fii la daan jaar dem ci jumaa ji ndax taxawaayam ak bëggal jàmm jàmm ak xéewal Lorek rek mo daan ay tankam kon yalla yalla suñu borom gën ko sam gën yep dëgëral gën ko ar ba yéen joy jooju yalla yalla suñu borom mottali ko kon daayira baa lay ñaanal wër dila ñaanal fan wu gudd nga gëna a suñu kanam ba saa su ne lépp loo xam koy wote bu nu gesso gis la ci yalla suñu borom dolli taxaway bu baax na xamna nañ yéene ji xamnañ japp ji xamnañ nañ bi da xamnañ nit li nga jàmm ji nga xam fini lambo ngo ndax donte discours ku ne xam daana jall waye xamnañ na togaay bi yagna wax dëgg yàlla tam mett na ci mag bu ñu sañoon rek li nga xam ne gannaaw daayira bi yëpp yegsi nañ ngir ziar yaakaar naa buñ yegsee boo dugg ci kër gi rek bañ xam ne ñu waa daayira yal na suñu borom moot li ko fay ñu kon li nga xam ne maanaam moom la ñuy def rek dañuy daal di jël njukkal li nga xam ne commission bi indi na ko di commission jannatul maxwa ñu jébbal ko sëñ imam donte xam naa ne jug bee taxawaay bi dana yéeme waaye kenn ci njaboot gi bu fi nekkee mën a ñëw nangu njukkal li nga xam ne daayira bi maanaam yëkkati na ko jëmale ko ci jëmmam ji waaw si yeggalee ku ci am kàddu jukkee ci njaboot gi nga yëkkati ku ko ci amati ñu jox jëwriñ nag mu mottali kaddu yi kon li ñuy def dañuy daal si jaada jullikaay bi nga xam ne daayira bi ñëw ko indi ziyaare ko sëñ imam waaw bisimilah bisimilah ak kaamil alquran bi nga xam ne it bokk na ci njukkal li ak kurus gi nga xam ne it bokk na ci njukkal li ak parfum bi nangul parfum yi ak satala gi nga xam ne ci la bokk tey loolu mooy mucc man de waay génnal kii boobu yéen de wàcc ngeen <laughs> yàlla li ñu war dafa gun ko sax. ana sama waa kër mbaa njëriñ. waaw waaw ñu ngi fi ñu ngi fi. xaaral ma bisimilah. des na waaw waaw ab yéen ba mu wér. yàlla na leen yàlla fay ba mu wér waroon na maa mën a bañoon a jàpp sama yoon mi nekkoon. jërëjëf ak euh, nataal bi nga xam ne ci la ànd waaw moom xam naa ne fotoom la ndeysaan ah. waaw waaw ah, jërëjëf jërëjëf kay jërëjëf jëlaa di jë jëwe jox ko jërëjëf yow xam naa ne <laughs> yaagaay jëlal la loolu ak addiye jooju nga xam ne dëgg yàlla daayira boo ko def la ko daa wax dëgg yàlla ñoo ngi koy bu baax na xem nañ kon ku ne xam na sa yéene xam nañ sa yéene xam nañ taxawaay biit yal na yàlla suñ borom yàlla suñ borom gën laa sàmm gën la fay yàggal lool nga ànd ko yàlla na taxawaay bi yàgg di jéggalu baax ci toogaay bi yàgg bi ñoo ngi koy tuub bu baax di ko jéggalu wax dëgg yàlla yow yéen a ji rek xam nga toogaay bi du metti mettiwul yëgu ni ci dara yàlla na leen yàlla fay amin amin amin yàlla na leen ko yàlla fay amin amin di jaayee Seydou bi jooju maa ngi leen di jërëjëfal maa ngi leen ñaanal bu ñaan yam yal na fa yal dawe amiin amiin ba mu war a yàgg jërëjëf kay jërëjëf jërëjëf jërëjëf jaaka lawu xayran jërëjëf kay jaaka lawu xayran amiin amiin amiin yàlla mi am pay te bu bayee mu doy waaw warahmatullahi taala wabarakatuh. barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziare ñu ngi jiital ci nuyoo bi ak ziar bi yëpp Mbacké ñaanal mu fi lool te lañ ak xalifa General yëpp mboolem ful jullit nek. te Islam tax la rek lay nuyu ñoo lay ziare baax rek xam nga ko ci ak mbaaxam ak ci ak yaatalam ak ci bëggam nit ñi jariñu loolu nag xam nañ ko bu baax a baax a baax ci jëmmam ñoo ngi lay ziaral ñoo ngi lay ñaanal bu baax comme ni ko Njóogu waxee léegi rek wax dëgg yàlla ñaan suñu borom mu nangu ñaan googu defal la ko ni nga ko bëgge am nañ mbégte lool nag ci mm. jotaay bii nga xam ne moom lañ jotaayoo mm. Mm. muy jotaayu lislaam ndax lii moom jëmmi suñ borom ji rek lañ ko defal euh, jaare ko ci suñu bunt Serigne Saliou mi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal te xëy na moom moonu ko sax ndax ay ndaw bu nekkee ci yoonu lislaam di xeeñ ci magi lislaam ña loolu ña nga ca la ngeen war te ñii dañoo nekk ci li nga xam moom leen war wax dëgg yàlla li ma gën a neex ci jotaay bi nga xam ne daana ma neex eh. wax dëgg yàlla biñ dikkee fekk daayira sopp sëriñ Abdou Aziz Mbacke mi nga xam ni ñun ak moom ñoom ñoo bokk liggéey bi nga xam ni kenn ci ñoom sëriñ Fallou mii moom moo doon jottali addi yi nga xam moom lañ doon jox sëñ bi nga xam ne loolu day firndewu ni maanaam liggéey bi nga xam moom la ñuy liggéey lislaam benn la te te du ñaar lislaam moom bu jógee bu ashadu an laa ilaha illa allahu ashadu anna muhammadu rasulullah xasee jóg kenn génnatu ca ñëpp nga ca kon lu rafet rek lañ cay sàkku te lii lépp rafet na kon ñoo ngi lay ñaanal bu baax sunu maam sunu waajur sunu lépp nga yag ci sunu kanam ñoo ngi gëna sakku ñaanit ci liggey bi nga xam mom lañuy liggey l'islam suñu borom teel ñu ci su lox ndax yaakaar naa ni euh, ndam rek lañ ci bëgg te yeen ñi nga xam ne yéenay sunu mag yi su ngeen suñu borom dañu ko defal euh, li ngeen xam ne fu ngeen tollu ñu ne ñi ngi leen di ñaanal ngeen yag ci sunu kanam lepp lu ngeen bëgg ci njaboot gi suñu borom defal leen ci lu kawé seen njott wax dëgg yàlla koddi muntu gudd ndax dañoo bañ comme ni ko wax ka jotay bi yag te suñu dafa xol dafa set lool ñaan rek suñu borom borom defal ñu tawféex ci jotaay bi bu ñu fa jógee kenn ku ci nekk loo bëgg rek ci lislaam suñ borom defal la ci lu koy soññee barke borom Tuuba amin yaa rabbal alamin den njóogu hmm? ñëwagul ñëw mi ñëw ñëwagul waaw ah njóogu njaay njóogu njaay waaw waaw amin yaa rabbal alamin amin amin yaa rabbal alamin amin sallallahu alayhi wa sallam amin yaa rabbal alamin عليه وسلم اعوذ بالله امين من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحسين آمين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات لنا بها من جميع حاجات آمين يا رب العالمين وتطهرنا بها من جميع سيئات آمين يا رب العالمين وترفعنا بها عندك أهل الدرجات آمين وتبلغنا بها أقصى الخيرات آمين من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا رب العالمين صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال آمين يا رب العالمين وتقلنا بها من جميع حاجاتي وتطهرنا بها من جميع سيئات آمين وترفعنا بندك درجات وتبارخنا في الحياة من جميع خيرات الحياة وبمنات آمين يا رب الله النور السماوات والأرض مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة زجاجة كانها أه. كوكب دري يؤخذ من سجرة مباركة زيتونة لا أثر خيط ولا خربية يكاد زيتها يلح ولم تمسس آمين آمين آمين نار النور هلا نور يد الله لنوره آمين يا رب العالمين من يسعى يضرب الله الأمثال للناس ولا بكل شيء آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخذ آمين والخاتم لما سبق آمين يا رب العالمين بالحق بالحق هادي إلى صراطك المتقين آمين وعلى آل حق قدره والمقدارات آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين